وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون بكر كونيك سيد مصطفى كونيك نينا نيوم ني نيوم كونيك nee na ku baax dem na. ku woyof. ku woyof. ku lewetoon. ku bëggoon xadara bi. lay soog a retraité. Serigne nee na tey lay soog a retraité. délégué xamul na délégué xamul luy retraité. nee na bi papaam génnee àdduna. ñu koy defal hommage. di ko defal hommage. di ko Serigne Moussa nee na bi ko Serigne Moustapha booleeg moom. mu ñëw taxawu barab mu ñëw taxawu barab ba. def ca lam ca def lépp. def ca lam ca def lépp. keroog ba mu koy yeewi. nee na keroog ba mu koy yeewi. dafa jooy. nee na dafa jooy. ni ma ñaar fukki at ci ni ma ñaar fukki at ci maa ngi soog a dellu si fii. Serigne nee na mun ko maa ngi doog a dellu si fii. te nii la ma sa papa daan yeewee. te nee na nii la ma sa papa daan yeewee. kon soo ma defalaatee nii. kon soo ma defalaatee nii. damay sant yàlla. mu ni ma. Serigne nee na mu ni ko. lii ñu la yéene defal. lii ñu la yéene defal. ren mu xat. ren mu xat. ba nga cay bég. ba nga cay bég. suñu ba ñu fekk. suñu yàlla mayee ba ñu fekke ko. nga di ko defaat. nga di ko defaat. boo ko gisaatee feneen. boo ko gisaatee feneen. aljana lay doon. aljana lay doon. li Serigne Moustapha di nekk nekk sama. nee na li Serigne Moustapha di nekk nekk sama. daañu la defal loo xam ni. daañu la defal loo xam ni. moom sax mosu koo gis. moom sax mosu koo gis. aljana nga koy gis. aljana nga koy gisawaat. suñu jarbaat. suñu jarbaat. daje na. daje na. ak jigéenam. ak jigéenam. ba bakkan rot. ba bakkan rot. bi ma yónnee. nee na bi mu yónnee. dafa ni. dafa ni. bul yónnee. bul yónnee. bi ko jotee téléphone. nee na bi mu ko jotee téléphone. mu ni ma délégué ma man. mu ni ko délégué ma man. kon Ablaye. nee na kon ab lay ñëpp nee na ñun ñëpp la demal. dëjëm bii. nee na dëjëm bi dafay dellu ci alquran rek. dafay dellu ci alquran rek. wala taziru. sëriñ nee na du uum ku ko maccul nee na ku baax dem na dafa jëlale sëriñ Moustapha nee na dafa jëlale sëriñ Moustapha parce que nit du weddi boppam parce que nit du weddi boppam ñun mënuñoo weddi suñu bopp nee na ñun mënuñoo weddi suñu bopp wa cheikhu wa cheikhu min tawqiirihi min tawqiirihi tawqiiru tawqiiru kulli alladi kulli alladi min xawlihi min xawlihi yaduuru يدور نانا سيد الحاج مالك ماكو واخ بو بغي سا نيت نانا بو بغي سا نيت لو تاك تي موم لو تاك تي موم دانكوي ديف موي موم دانكوي ديف موي موم كون سيرين بي نانا كون سيرين بي ورنا تاخ ورنا تاخ ني واتي ليب ني واتي ليب دغ نجابوتام دغ نجابوتام نيو نيو واي كي ني نيوال واي نانا كي ني نيوال بو سيرين مصطفى لا جيني سيرين نانا بو سيرين مصطفى جيني موم تي بوبام موم تي بوبام امنا تير am na cër boo xam ni boo xam ni jëflante naag xadara bi jëflante naag xadara bi ku xadara bi ñor ku xadara bi ñor boo déggee bisam boo déggee bisam war na laa jaral war na laa jaral nga jóg nga jóg waxuma mbaaxam sax nee na waxul mbaaxam sax waxuma sëñ Moustapha waxul sëñ Moustapha waaye taxawaayam waaye taxawaayam ci xadara bi ci xadara bi bi ma xamee délégué ba léegi nee na bi mu xamee délégué ba léegi dundam yëpp dundam yëpp ci kër sëñ Babacar la ko jeexal ci kër sëriñ Babacar si la ko jeexal ànd ak sëñ Moustapha. ànd ak sëriñ Moustapha. teg ci bakkanam. teg ci bakkanam. fu war. nee na fu taxawaay war. ma nga ca kanam ma nga ca kanam. musul dellu gannaaw musul dellu gannaaw. musul nekk ci gannaaw. musul nekk ci gannaaw. waaye nag. sëriñ nee na waaye nag. wóor na ma na ko ni. sëriñ Babacar teeru na sëriñ Babacar si teeru na ko. wóor na ma ni. sëriñ nee na wóor na ma ni. Seydil Hadji Malick teeru teeru na ko. yal na ko muurloo. sëriñ nee na yal na ko muurloo amin amin ci biir bàmmeel ñaan yàlla di ñaan yàlla njabootam gii mu fi bàyyi njabootam gii mu fi bàyyi yàlla yàlla teg ci ñoom loxo sëriñ nee yàlla yàlla teg ci ñoom loxo barkeel soxna si barkeel soxna si barkeel léppam ñu ñëw nee na fii ñu ñëw am na daje yoo xam am na daje yoo xam ni am na ñu ñu ñu mën a teewal am nañu ñu ñu mën a teewal waaye am na koo xam ni waaye am na koo xam ni waxuma sa bakkit waxuma sa bakkit jóg dem jóg dem sax du ca doy du ca doy. boo yéen woon Tiwaawan yëpp. nee na boo yéen woon Tiwaawan yëpp du laaj lutax tax du laaj lu gis nga bu Tiwaawan yep ñëwoon. gis nga bu ñu ni fu ngeen jëm. ñu ni fu ngeen jëm. ñu ni Tiwaawan a déplacé. ñu du ni lutax ken du ni lutax du gatché nak du gatché dé du gatché cheikh dem na Seydil Hadji Malick dem na barki démb cheikh Seydi Mouhamadul Mansour Serigne Cheikh Ahmad Tidiane Serigne Abdou ñu baax ñëpp dem nañu nee na kon deedu gàcce dafa fekki mag ña rek nee na noppalu ji fa Serigne nee na tabaarakallaahu ñu ngi ñaan yàlla yal na yàlla xare ko àjjana Serigne nee na mu ngi ñëw. nee na di ziar Serigne Cheikh. Serigne Cheikh jiite. nee na amuñu lu dul moom. muy sunu lépp. di sunu soppe. di sunu xarit. nee na ñu bokk baay. Serigne nee na mi ngi lay ziar. tabaarakallahu. Serigne nee na ñoom Serigne aslum bi. nee na El Hadj Maguette Diop. imaam. nee na ñoom lañu àndal. démb. démb. dama yéex a gis message bi. nee na dafa yéex a gis message bi. Khalifa Fall yónnee ma ko. Khalifa Fall ko ko. wallaahi laadim. nee na lu bari jóge na ci man. lu bari jóge ci moom. ndax bi ma ñëwee ci gàmm gi. nee na ndax bi mu ñëwee ci gàmm gi. sama xel ci moom la njëkk dem. nee na xelam ci moom la njëkk a dem. ndax moo a nuyu. ndax moo ko daan njëkk a nuyu. teeru ma teeru ko téye sama loxo téye loxoom dugg ak dugg moom ren bi ma agsee nee na ren bi ma agsee gisuma ko gisu ko loolu jëkk a marqué ci nee na loolu jëkk a marqué ci moom waaye tabaarakallahu waaye nee na tabaarakallahu yàlla kenn du xëccoog yàlla kenn du xëccoog moom lii moo ko neex nee na lii moo ko neex di wax soxna si jërëjëf nee na di wax soxna si jërëjëf kaddu yi rafet kaddu yi rafet na ci seede bi ci seede bi yàlla yàlla jàppale yàlla yàlla jàppale la nit noonu rek lay nit noonu rek lay ànd ak nit ànd nga moom ànd nga toog fii nga toog. rusoo fi rusoo fi. rafet na nee na yal na yàlla taxawu la. taxawu sa njaboot. barkeel ko. sëriñ nee na tabaarakallaahu. ñu ngi koy jaal daayira bi yëpp. di ñaan yàlla. yal na fi gëj. yal nañ ko yéex a fayantoo. di ko jaal. Baye Moussa Diop. njabootu Baye Moussa Diop. waaw waaw waaw sëñ Moussa Diop. nee na sëriñ Moussa ku ko xam ku ko xam. ak sëriñ Mansour ak sëriñ Mansour. kël yëddi kël yëddi. lil fammi lil fammi. heure bu ne. heure bu bi yëkkati nee na sëriñ bi yëkkati na ko. mu yanu ñi mu am ñëpp. mu yanu ñi am ñëpp. lu sëriñ bi mës a jaaxle. nee na lu sëriñ bi mës a jaaxle. ci jëfandiku ci jëfandiku. bu ko wooyee rek bu ko wooyee rek. xelam dal xelam dal. loolu yàgg na. nee na loolu yàgg na. fii. nañoo kër Seydi Hadji Malick yàgg nañoo kër Seydi Hadji Malick de Thiès gii Thiès gii dëgg yàlla nee na wax dëgg yàlla ca bal yu njëkk ya ca bal yu njëkk ya ca tàngaay wu njëkk wa ba tey ba tey lii ngeen di def yëpp nee na lii ngeen di def yëpp ay donnante la rek ay donnante la rek lu ngeen donn la rek lu ngeen donn la rek fekkoon seeni maam fekkan seeni maam ak seeni baay ak seeni baay àndoon ak sunuy maam àndoon ak sunuy maam ak sunuy baay ak sunuy di ko doxal di ko doxal ba ñëw ci seen loxo ba ñëw ci seen loxo ngeen koy doxal ngeen di ko doxal kon wat ca watit kon sëriñ nee wat ca watit ñu leen téye nee na ñu ngi leen di téye. duñu leen téye duñu leen téye. ndax xam nañu. ndax xam nañu. xataay bi xataay bi. ak coono yi. ak coono yi. ak boobu ba léegi. ak boobu ba léegi. yéen a ngi ci. yéen a ngi ci. waaye kii fi jóge. waaye kii fi jóge. lu ko nit defal. lu ko nit defal. ëpp na ko ëpp na ko. da nga koy fay bor. da nga koy fay bor. waaye lebaloo ko waaye lebaloo ko de. ndax wax dëgg yàlla. nee na Serigne nee na wax dëgg yàlla. mosul seetaan kenn mosul seetaan kenn. ci bisam kenn ku ne sëriñ na kenn ku ne bis bu mel nii bis bu mel nii mas naa ñëw ci yow mus naa ñëw ci yow mu jël léppam mu jël léppam def ko ca kon boo ko defee ci bisam kon boo ko defee ci bisam da nga koo fay bor waaye lebaloo ko tabaarakallaahu bu ñu sañoon bu ñu sañoon dëj bi lépp dëj bi lépp sëñ Moustapha du ci def Moustarchid du ci def dëkkandoo du ci def kenn du ci def nee na dëjëm la moom moo ko waroon a def waaye tabaarakallaahu nee na li baayam daan wax ku dund ci sunna ba dee ci sunna ba dee ci loo ko defal lu dul sunna tooñ nga ko tabaarakallaahu nee na ñu ngi jaal ñëpp di baalu àq ñëpp ñëwal na ñëpp nag ñëwal na ñëpp ñëwal na ñëpp tabaarakallaahu ku amoon yéene te bëgg a ñëw noo ñëw wala nga dégg ko wala déggoo ko wala nga am gàllankoor boo ñëwul sëriñ nee na mi ngi ñaan ñëwam bi mu wuutu ñoo ñëpp ñëwal leen tabaarakallaahu <coughs> jërëjëf si jërëjëf si wa bashiri saabiriin الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون